jërëjëf mbokk yi ñu ngi fii ci aéroport Blaise Diagne kii di Jokkel doog a jógee dëkk bi di Maroc préparé ji woon combat digganteem ak Kéweul mbokki yi bu leen fàtte ni jam production moo ko organisé le 14 août Jokkel ñëw na macha allah am na lu ñu gis ci moom waaye dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi wax lan moo waral Jokkel dem voyager korité jee àll tabaski jee àll Jokkel ñu ngi lay. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal suñu ñaari waajur. ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di nuyu sama ñi nga xamante ne ñooy sama lépp sa sama wàllu làmb muy sam papa Kéba Kanté sam papa grand magum ak staff bi yëpp maa leen di ziar di leen yéen ñi nga xamante ne tamit boobu ba tey yéen a taxaw fi di ma xaar waaw dañoo demoon uti doole xam nga boobu ba ñu ngi ci làmb mosuñoo génn ñoom am combat capital muy maag kéwél staff bi décidé na damaa war a génn dem waajali ko loolu rek la woon ban moment nga xalaat ni war ngaa génn jokkeel dafa nekk ci ay jafe-jafe jàpp ni dafa am lu mu manqué faw mu génn dem wuti ji ko wala Jokal lan moo tax mu génn dem Maroc entraîné. waaw ñun sport nekkatuñ ci xale ay professionnel lañ ci léegi am ci kilifa ñu nga xamante ne ñoo ñuy wax def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi xam nga li ma la wax ñi nga xamante ne ñooy décider tegal ñu planning entraînement ñoom ñoo décider ne damaa waroon génn rek parce que bëri naa fi combat yi gën a danger kéwél te génnuma waaw peut-être dafa jotoon quoi. mooy loolu waaw. ba nga demee Maroc entraînement yi nu mu demee coach yan coach ñoo la yoroon ak ba nga demee lan nga fa yokk ji woon loo xamante ni mënoo ko woon am Sénégal. waaw niveau professionnalisme gën nañ ko faa yokku am fa ay coach yi nga xamante ne jàppale nañ ñu ci la nga xamante ne moo ñu manqué woon loolu la ñu wuti woon foofu rek lu ñu manqué woon rek. ñaata séance nga doon dama doon régulier nag des trois des fois deux. deux hmm. hmm. yi nu mu daan bi moom da ngay def footing. soo jógee foofu noonu dem salle gréco-romaine ak musculation waaw. Euh, bi nga demee sa adversaire gis nga ni am na combat ci diggante bi diggante moom ak Tidiane fey ba nga demee seetaan nga bi en direct nga ko doon seetaan wala lamb ji dafa jeex nga seetaan ko ak nan nga ko gisee. waaw pratiquement nag man dañ ma doon rendre compte parce que dama nekkoon ci benn club ba nga xamante ne moon accès yor sama yooyu noonu. Hmm. waaw bi combat yi passé benn weekend la am kii rek Kéba moom ma envoyé lien bi sax après ci laa ko seetaan waaw. nan nga ko gisee. da doon bëreet yàlla xañ ko hmm. xañ ko sax laay mën a wax ah hmm. mu ne xaw ma dañ koo liggéey ak affaire yooyu noonu hmm. moom na jéem a wér rek balaa ñoo dajale 14 août parce que man tamit dafa am ci lu ma jóge quoi am fu ma tegaat sama bët ci làmb le 14 août du ci moom de su boppam ma génnee ko stade bi ah man dinaa tabaskee àll korité àll ñëw stade di yoot naan dañ maa liggéey Keweul lu mu def la 14 août daanu bu soobee yàlla. waaw na ñëw bëre si rek incha allahu rabi. moom xamal na ni gars yi dafa am loo xamante ne dañ ko defoon ci làmb ji digganteem ak Tidiane Faye erreur la boo xamante ni daf ko am ay supporteurs am ñu bari mere ko te erreur boobu ci Jokal la ko fas yéene rectifier Jokal mi dem Maroc ñëw préparé ji daj ay coono est ce que day bàyyi Keweul rectifier erreur bi ci. xam nga làmb boo jekkul doo bëre fii mbër yàgg na fay wax naan ay dañ maa def lii dañ maa def lee ne Tidiane da kaa mun. moo ko mën Tidiane Faye da ko daan kéwél li mu bëreeg Tidiane Faye moom dafa dafa waroon a ruus a toogaat ci télé sax di expliquer ay détails ak yooyu noonu man damaa daan Tidiane Faye kéwél mënumaa indil dara gaynde kéwél du puus du paas loolu man maa la ko wax kéwél du tuus du tans loolu dafa leer macha allah gis nañ état de forme bi ah, gis nañ ni jokkel yokk na yokk na yokk na doole yokk na poids xamuñu nag ba xam doole ji moom faw nga jàppante kéwal ñu doog a xam ba xam na doole wala de poids bi nga yokk lan la lan moo tax nga yokk sa poids. jokkeel du naan katu doom de man dama Maroc di nelaw wala di lekk ay patak yooyu noonu de entraînement moom fa yóbbu woon bi ma demee lañ ma santoon loolu laa def parce que dañ doon rendre ñi nga xamante ne ñoo ma fa yóbbu woon dañ leen doon rendre compte chaque jour hmm. waaw chaque jour que Dieu fait dañ leen doon rendre compte sama soxna bi ma jógee fii laa gëj a dégg. wallahi alazim barke alxuraan ak samay rak ak yëpp. lan moo waral li ma la xanaa dañ maa tëj raap. maa ngi doog a xabi nii di gis ay oto ak affaire yooyu business yooyu noonu lu leer laa lay wax nii. mais bu bees xaw ma look bu bees bu jokkeel ñëw bàyyi ay bar bu tent ko lan la. takk ñaari ak ma la wax ay professionnel lañ léegi ci làmb am na ay am na yi nga xamante ne tourné nañ paaj woowu noonu. waaw lu leer laa la wax da làmb ji dañ ciy wonewaat leneen lu bees dàq de. Hmm. lu leer laal ma. teg tegu ma jeexal de. gaynde man sama place ci làmb làmb dama ko bëgg a yóbbuwaat beneen level xam nga gars dañ ko wax te duñ def hmm. ñun ay professionnel lañ te professionnalisme boobu dinañ ko wane ci làmb boobu moo sëkk ci côté yu ne xam na CNG sax dinañ gisaat leneen. ci hmm. jàkkaarloo yeeg business yooyu noonu. parce que làmb la quoi tey soo xoolee sport de combat yi seen signature seen jàkkaarloo yi day mel na nga xamante ne tey àdduna ñoo koy xaar. te làmb moo gën a complet loolu tey boo seetaanee MMA tey boo gisee acteur MMA yi mais seen signature day ne ay jantal lañ ay professionnel xam nga làmb dafa dafa soxla loolu essane toll ni war boo ne beneen xar kanam ci làmb kon da yéen ñaar kéwal bu ñëwee du am jàmm ah tegal leen ko interview bi rek du am jàmm de na ko waajal de moo ay mbokam du am jàmm ci lan am jàmm ci dara déet déet mayee koog moom balaa ngeen a commencé kébel déggoo lu ma la xanaa du am jàmm la 14 août nu mu tuddati góor a soog ak ñooñu sax dañuy xaar ba la 14 août incha allah. waaw man nag moom sama làmb duma ma ci tricher man soit damay ñëw làmb daan walla ma daal man du yabu yabuma sama supporter sama supporter nañ xam nañ ma parce que ñi nga xamante ne topp nañ moom babat bëri naa bëri teglal leen ay ndami ndam tolof tolof day am sport day am ak bas loolu la nga xamante ne suñu ñaaku jom la parce que combat yi ngay gën a foog buñ ko entraîné ñaareel da nga koy ñàkk kii mën na maa seere sama entraîneur la dund nañ lu ne dawloon na ma lóobu ay 18 kilomètres dañ ko doon ànd di ko daw maa moom mais làmb dafa nekk la nga xamante ne sport de combat day am ak bas da nga xool ci football te xoolal Barça am nay jamono Barça loo wax Barça lañ la wax te tegle na saison ba nga xamante ne dañ koy dóor ay score dañ naan kii du équipe te pourtant ay meilleurs joueurs am ci monde bi ci équipe ci équipe bi lañ nekkoon sport moo demee noonu ñun nag sport la ñuy def defuñu leneen làmb la xëy na ñi ma daan yàlla moo dogaloon na tuddoon na dañ may daan te ku ma dóor rek ma yàlla bi man mbër musumaa daan ma xaritoog moom man képp ku ma daan jàpp naa ne damaa war a fayu man du daw laaxu làmb dugguma ci pour ay affaire de gaynoo ak business yooyu noonu non non dama cee dugg pour wane sama boobu muy jom ci man bari na laajteel mbër yi ma bëreel muy Ada Fass ak keneen ñi ma daan man man sàkkuma ci xaritoo kenn ay mbër dugg na fi génn fi non non parce que làmb jom laa ko def quoi tey boo daanoo da ngay rus gaa foo la nag mais boo daanoo rus noonu la demee te encore tamit nit ñi sonn ci man ñi nga xamante ne dañoo bàyyi seen lépp di def ci man alal ñooñu dafa jot tey jii mar waaw delloowaat leen njukkal reetaanoot waa leen parce que am na lu ñuy xaar ci man Kéba mi roi roi des arènes lay xaar ci man moo ko bàyyi ci man wallahi azim bu ko lan la gis ci yaw mu ne ma man nekk nekkuma fu may waxee fi mu toll nii jëf rek laay xaar ci moom bala 14 incha allahu rabi bala 14 bu soobee yàlla wàllu mystique wàllu mystique moom wax dëgg na yàlla focalisé wu ma ci bi nee na moom mystiquement dañ ko atteindre ba lu bëree bëri ci làmb mënatu koo def. kon te Jokal ñëpp xam nañ ni na waajiwaat ah? moom ak waa Bawol nañ waajiwaat. Kéba loolu nga wax. nañ waaji ñoom ak waa Bawol nañ waajiwaat. xanaa moom Kéwel dafa ay mbokkam. Kéwel dafa tuuril ay mbokkam. mbër dund na lu gën a métti li mu dund. te nit déggu ko maanaam bu mu gaaw sëngeem dafa gaaw sëngeem quoi. Hmm. tolof tolof Kéwel ñun tolof tolof yi ñu dund ci làmb dund ko te déggu ko. trois défaites lañ tegle te ñi ñu daan ci lam waruñ ñu woon daan te ni dégguñu amul xajamal amul yàq dara daa bëri naag Tidiane Faye puusul paasul nee na puusuma paasuma match bi tas mais affaire de dañ maa liggéeyoon nag ay ki ma def loolu yooyu baaxul yooyu amul yàllaa fi ne lu dul yàlla pinton la déggoo li ma la wax gay kii moo ma naan lu dul yàlla pinton la barke Serigne Bab ñun gëmuñu loolu santiru ma ko de ah maa ngi sant yàlla bu baax daal maa ngi sant yàlla daal bu baax waaw di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoom ma jël si waaw di ñaanal Sénégal jàmm ay ñoom El Hadj Malick Moussa xam nga saa yaraax gaa yëpp mooy loolu noonu quoi waa Black ñoom Black tamit maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waaw noonu la demee sama coach bi ku wax loolu kéwél amagul lu ko naqari ci làmb amagu ko de kéwél amagul lu ko naqari ci làmb man kéwél teguma ko bët essane toll nii bëreeg ñàkk jariñu ñàkk jariñu daan ko mu bëreeg laa faxas ñàkk ci une minute laa ko faxas loo tax moom mu mer ko ci làmb ci ci une minute laa te yaan fay dama koo fooyee ba tarki ndaay mer te ñoo ñëpp dañoo ñëw fooyee ko hmm. kéwél day xaar ba jamono neex gaynde kéwél fu mu dal baaxul ta bu soobee yàlla bu arbitre sifflé dina xam ne fu mu dal baaxul dama doon caaxaane làmb man Jokal wallahi azim dama ko doon caaxaane am na lu bari la nga xamante ne daf ma ko woon ci làmb mais boo génnee tey jii ba gis professionnel yi li ñuy daj ñi nga xamante ne dañuy def sport de combat yi ñuy def ak sacrifice yi ñuy daj ci laa yeewuwaat man xam ne tey jii sport de lu ñuy caaxaanee caaxaanu ma ci de damaa entraîné. baax na ba la 14 allah di woo gars yi di leen bëgg xam nga ñoom ñoom ay siin siin nañ de Kéba waa Bawol xam nga Fatick lañ jóge ñu dàq leen ñu daw waaw kéwél su taxawee dañ koy dàq mu génn stade hmm. waaw su paree nag mu ñëwaat dellu si waat si séeréer si jébbalu si waat ndeysaan combat bi mille pour cent Fatick la hmm. te dafa am yu ñu naqari yaa nga xamante ni bawol bawol yi dañ ñu ko tegoon te si kéwél lañ koy fay moom mooy yàlla dina waxuma la ñam de dina daj lu metti